góor gi ni ma jëlal Malick mbay nga jël Serigne Ndiaye waaw nga jël ñoom Khalifa Sarr ñooñu nga xam ni nit ñi miin nañu seen way jur yi ci man nga ànd ñoom nga nga dem nuy ji ko bi ñuy ñëwee ndeysaan léeg-léeg mu jox loxo kenn ni kii kan la ma ne ko kii mooy Malick Mbaye doom walla ci njaase mbay bi daan ànd ak góor gi mu ni wax xayortu mu daldi nuyu ni ma kii mooy kan ma ne ko kii mooy Serigne Ndiaye doomu ji Malick Ndiaye bi nan ànd ak Serigne bi mu gësam loxo bu ni wax a yortu waaw mu daal joxewaat loxo ni ma kii mooy kan ma ne ko kii mooy xalifa Sarr doomu Abdourahman Sarr bi nan ànd ak góor gi mu daal di koy jël taf ko ci boppam waaw ni ma wàcc nga ku sa baay ànd ak ña mu yëdda doon àndal nga xëy ànd ak seeni doom wàcc nga waaw waaw wallaay ndeysaan keroog wax na lu ne moom président du Dia encouragé ma ni ma noon la ndax sa baykat ñun li ñu génne moo ñu ca génne waaw kon nag erreur boobu duñ ko def deux fois waaw benn yoon rek lañ koy def waaw kon nak na nga taxaw ñun luñ la mën a jàppalee dinañ la ko jàppalee wa ko défé kon nak loolu rek mo fi nek ku ne xam nga sa nit fa mu jaar ak yow moo tax biñ ma délégation président Ablay Wad ñëw na ba fi ci résidence bi tabarakallah ak yobante ye ñu indalé wax kàddu ya ñu wax yépp ma ne moom ku xol li won demb sa xel war na man dal waaw ni ablay wad de mu tok ba ni président de la république bu Sénégal ak liñ ko wan ak liñ ko dugal ci prison nga xam ni bu dul woon sunu fayda ak sunu taxawaay waxuma la nekk président waaye du génn sax prison man maa la ko wax waaw mu mel ni nag kon coono boobu moom la ñu jël teg ko ku mel ni Sonko parce que la ma wax ca anniversaire ba ni jàmbaar la gor la moo leen déranger ak la ma tudd pap Alé moo tax dañu jóge ca anniversaire bi rek ñu arrêté leen ñoom ñaar waaw boole ca Cheikh Bara Ndiaye waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen borom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rek kon xamuñu stratégie sax waaw

Il ko médecin médecins qui ah, dans le comment foog ngeen may ko Il di dem ci ko qu'ils ci lu ñuy rek lay mujj man ma leen ko wax ni jëm nañu tenter pour éliminer ko définitivement xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw waaw te yaaya ngi nii seede la ci man cheikh a ngi nii seede la ci man léya ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man waaw ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla incha allah waaw ah, mu ngi naaj cour bi sax sorewul